bu sa kanamee télé achat bi saag bi la ñuy jaay saak bii la ñuy jaay li ci ne nag dañ koy maye d'ailleurs mën nañu xool lu nekk ci biir eh! ab li nekk ci biir yëpp dañ koy maye télé bi génne lépp nag na lépp génne ndeysaan bong bong kon ci bi ngay dund lii nga dugal sa saak <laughs> ma yeggali ko <laughs> résulter dangereux. Bon, d'accord. On va on va vous proposer une page